Ah wow, lagi Lagi waaw waaw tak ɗo kadi yam metno laggittaɗe ɗa guene ñewɗo lagi? ɗa tangre wi seega laggi fof commencé moɓoni commencement ya, pele dem naa ba àgg fa ma xam ne affaire bi fii la jëm moo tax ma ñëw sama place moo tax ma am yu ma ñëw sama place wàcc wàcc wàcc bagage te te yàgg ko hmm. même sinon rek kon bu ñu affaire yaayu yëppay